maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen baalu ak ndax képp koo gis rek xam nga ne am na ité rawatina nag tey nekk dimanche boo xam ne ñu bari dañ ci noppaleku parce que loolu rek lañ ci am kon su ngeen bàyyee seen ité fii ñëw moo tax ma di leen gërëm di leen sant xam ne xam ngeen ne affaire bi ñu ñoo ko bokk ñu ñoo ko moom maa ngi gërëm képp ku nekk acteur de la lutte la presse les promoteurs les associations les communicateurs traditionnels les amateurs maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax ci seen teewaay bi di xam ne lii ndax su ma nataan nattangoo su fi jógee balaa may commencé waxtaan war nañ ko defar une minute de silence muy Bala Gaye numéro un

lu waral oté le ministre des sports maktarba am renouvellement bu mu renouvellement à mu jox Manga 2 le roi des arènes vice-président chargé de la lutte traditionnelle du Sénégal bo amul sans frappe kon refetna, na ma woo séeréer yi woo joolaa yi woo tukulóor yi woo olof askan bi nekk fi rek dañ leen war a woo balaa ñu wax ne je rends grâce à Dieu sant yàlla bu baax a baax a baax parce que dafa am loo xam ne ku nekk amateur yaa ngi ko doon tawat képp ku nekk mbër yaa ngi tawat ma suis ci ancien comité bi nekk minoritaire foofu am lu ñu nanguma ko ne parce que su ma l'a, benn mbër fay 1000 francs kon tey yàlla su defee Mactar Ba jox ma mission bi dama développer lutte traditionnelle dans toutes les régions du Sénégal yaakaar a ne acteur lamb ci Adrien Sengor la war a ak comme ni ko avec le président Semou ci semaine bi waxtaan naa ak moom ak association ñu dalal ma jàmm ñaanal ma ma am ci mbégte lool yaakaar naa ne képp ku nekk nitu lamb rek xam nga Adrien Senghor bëri na le ba fu ñu nekk Ngoba donc tay, bésu tàllal leen loxlo, la <coughs> bésu jël seen xalaat la <coughs> lu wara a tax làmb ji dox bu ma sante Yalla, bu ma ak suma président monsieur Sen, Bira Sen, ma wax la première chose bo xamné mom la wara def de don daw suma yaram ma gis mbeur dugusi si di ñaan

maa ngi lay gërëm di la sant 16 millions de sénégalais nga tànn Manga 2 pour bëre simple te mun naa wax ne bëre simple moo nekk miroir ci suñu cosaan ci suñu làmb maa ngi la ci gërëm di la sant ci te wax la ne li nga bëgg mission bi ma jox xam naa ko dinaa yaatal yëpp dinaa dem ci ci région yi dinaa def tournée nga jàppale ma ci yooyu yëpp. pour ma mun a waxtaan ak askan bi ndax doléance lu ma jot fi bari na mais Dakar laa yëmagum waxtaan ak ñom suma paré ma door dem ci région yi and ak sous-préfet and ak suma président bira su amé jot su amul jot aussi ma dem defi suma mission comme dans leen di remercier bu baax fu mu nekk nag damay bàyyi parole bi ku am question bu mu poser ou bien ku am xalaat bu refet bu mu indi mu wax ma ñu mun ko jël càmbar ko wax ne action yi ñu def ci lutte traditionnelle yemul ci 1000 euh, francs rek dama wëlbatikuwaat ne ko xale yi metti na mu ne ma dinaa wàññi lutte avec frappe mais lan nga xalaat ci lutte traditionnelle ma ne ko ñu wàññi licence boy booy yi d'abord ñu wàññi licence boy yi 5000 francs la ñu doon fay ñu indi ko ci 3000 mu ne d'accord na ak yow ma ne ko des na promoteur yi dañuy son li xamna né ci seen sidit la nek di tëgg làmb parce que dañ ko bëgg di tëgg làmb yo xamné dañuy jël lu ñu gagné sax ou bien lu ñu per dem yëkku yóbbu ko ci dëkk ya am lu ñuy jàppale nit ci soit ci dispensaire yi soit ci école yi donc je pense que war na leen am dérogation bu ñu leen di defal mu ne lan nga xalaat. Je ne ko licence licence 100 000 francs la suis ko indi ci soixante 000 ne ma nga ah, li def dina parce que ministre bi la je mu problème kon yooyu ne def nañ ko ci lutte traditionnelle kon féliciter di remercier monsieur le président Birane Sène ci accord yooyu yëpp pour m'accorder accorder ko bu mun ko def ci

les communicateurs traditionnels, les amateurs, pour ce moment de remerciement. Et le moment de remerciement, vivement le ministre des Sports, Matarba, pour cette marque de confiance envers moi. Je vous remercie. Oui, l'objectif mesdames et messieurs les journalistes, donc c'est pour innover la lutte sénégalaise, parce que j'ai dit tout à l'heure que la lutte traditionnelle sans frappe, c'est le minoir de notre tradition, de notre espoir national. Donc c'est pourquoi aujourd'hui j'ai appelé les acteurs de la lutte pour qu'on réfléchisse là-dessus, comment on pourra développer la lutte traditionnelle. Et suite à cela, je pense que je vais faire une tournée dans les régions, les CRG, euh, les, communicateurs qui sont là-bas, les acteurs de la Ligue qui seront là-bas, discuter avec eux et savoir leurs besoins, leurs problèmes, et puis on, on pourra travailler là-dessus. Donc, euh, je pense que, en grosso modo, c'est ça le problème si vous avez des questions à poser, monsieur le journaliste, mesdames et messieurs encore, vous pouvez aller. Hein. De ce que vous avez fait de votre nomination, la réduction euh, J'ai parlé tout à l'heure en off de ce que j'ai commencé par ce que j'ai fait dans la lutte traditionnelle. Je vous ai dit avant, un lutteur, avant qu'il rentre dans l'arène, il donnait 1000 francs, une participation. Moi, étant ancien lutteur, ça me gênait tellement. Mais comme c'était en comité, de seul ne pouvait pas prendre la et c'est le président qui avait proposé cela, on l'a exécuté. Moi aussi, j'organisais des galas de lutte aux arènes ADN Senghor sans demander de participation aux jeunes lutteurs. Parce que voyant les jeunes lutteurs, à chaque fois qu'ils sortent, qu'ils demandent 200 francs pour acheter du cacri, pour acheter du lait, ça me faisait beaucoup mal. Donc aujourd'hui, à mon arrivée, en tant que deuxième vice-président chargé de la lutte traditionnelle sans frappe, je demandais à mon président, M. Sen, la première chose, c'est de supprimer les 1000 francs. On s'est trouvé d'accord, je le remercie, et j'ai proposé d'autres choses, et qu'il a pu accepter encore. La réduction de la licence. la réduction de la licence, les promoteurs, et puis j'ai donné des détails. On sort d'une maladie, le oui. Tout le monde a des problèmes. Rien ne marche. Les promoteurs aussi, les lutteurs aussi. Donc il faudrait qu'on donne à ces lutteurs des faveurs. Et je pense que tous ces faveurs, dans un premier temps, ont été acceptées par mon président, M. Sen. je vous remercie.

waxtaan ci ak le ministre des sports même bu Covid bi jàllee ñi ngi ñaan la ñaan yàlla mu jógee ci tey tey tey ndax nag fàtt na réew yi moom bu fi Covid bi jógee bu leen yokkaat licence licence moom bu mën a wàññeeku moom gën a wàññeeku bu mu yokk beneen bi mooy nga bàyyi xel lool ci combine yi ndax man xam man bëree bàyyi man damay topp bëree dóor damay topp par simple ndax dama koy dund damay dem ci gala lutte avec frappe yi damay dem ci gala yi sans frappe yi fii ak région yi comme ñu bëri na loolu lu yàq ci wàllu làmb beneen bi est-ce que yaa ngi bàyyi xel li xew ci région yi ndax fii ci Dakar séddale bi ci ñeenti mbër yi rek lay yem mais gis nañ ne région yi séddale bi dana dem ba ci juróom-ñetti mbër yi boo dee ba quart de finale di nga ñam dara mais xam nga soixante et quelques litres bëree wala cent nga dem ba quart de finale ñu beeg loxoy neen te région yi ñu koy def ñu ngi koy apprécier nit ñi ñu ngi koy rafetlu boo ko defee nga bàyyi ko xel li ci des nag man li ma doon wax rek man damaa bokk <coughs> kon dama lay ñaanal réussite am na ci loo xam ne su ma ko waree wax du ma ko wax ci rajo du ma ko wax ci dara dama lay woo téléphone ne la grand defal nangam ak nangam bu dee jariñ nga jariñoo ko bu dul lu lay nga xam ne am naa yéene damaa xamul kon ñu ngi leen ñu leen gërëm di la sant ñun ñëpp dañ nekk sa ginnaaw jàppale ndax dañuy dund làmb làmb ku ciy wax rek da laa neex mais ku mu yitteelu doo sax wax kon ñi fi daje lépp dañoo bokk bëgg-bëgg dañuy dund làmb mu bokk ci suñu suñu suñuy bëgg-bëgg ñu ngi lay ñaanal yan bu woyof yal na la jàpp yàlla jàppale yow boo dul nitu làmb xaw ma kan mooy nitu làmb jërë ngeen jëf nag continuer je pense que tant que ñu ngi fii mun naa wax ne day continuer su fu jógee nag tuma wax ci lu nekk suma gannaaw mais na say xel dal tant que ñu ngi fii lu ñu xes xaymaa ba pare day continuer su neexee yàlla incha allah

dafa am yoo xam ne dafa am ay critères pour nekk promoteur donc ñu ñëpp on est des sénégalais des sénégalaises ku bu nekk promoteur am na ay chartes yoo xam ne moom nga war a topp am na ay papiers yoo xam ne da ci war a fournir ci papier yooyu suñu gisee ne tu es légitime pour nekk promoteur on n'a pas le droit de t'interdire mais suñu gisee ne am na lu ci ñuul les responsables dañu jël seen décision pour bañ la jox licence merci c'est vos députés qui devaient euh, défendre ça à l'Assemblée. Mais en tant que vice-président chargé de la liste traditionnelle, je vais demander à mon ministre, je vais présenter à mon ministre un document concernant à propos de tout cela, à propos des arènes même dans les régions. Je vous remercie. Pour voir les CRG, les comités locaux je pense que loolu c'est une discussion là bas merci Allô. Allô. voilà donc euh, respect bi journaliste ko wara comprendre respecté nañu journaliste parce que ñun invité Bo genre conférence de presse lamb ci fu mu ni, ni, ni, ni, ni. bi ma nga di lamb presse ci la làmb ji egsi fii te ñooñu ñoo taxoon bëre ñi fi def ou bien ñoo yemoo donc il faut ñu jox cër ñi nga xamante ne am nañ obligation vis-à-vis de leur organe ñu wax ñu laaj seen question ba pare ñu tontu leen ku bugg a dem ci ñoom dem ku bugg a des des ñu continuer suñu waxtaan président association yaa ngi fi ñu poser seen xam nga état des lieux lañ def si mais à côté de ça conférence de presse d'abord parce que ñii ñooy wéyal lamb ji ñii ñooy jaay lamb ji

Aujourd'hui, je veux collaborer avec tout le monde, la porte est ouverte pour tout le monde, que ce soit les associations, que ce soit les promoteurs, hein. les acteurs, je veux dire tous les acteurs de la lutte, simple. Aujourd'hui, on veut revoir la lutte sénégalaise, les heures tardives. Dans les régions, on va faire une tournée, voir les CRG, les comités locaux, discuter avec eux, parce que j'ai beaucoup de documents que j'ai reçus des gens qui terminent à 4 h du matin. Je pense que tout ça, c'est des discussions à mener. Donc c'est pourquoi j'ai fait aujourd'hui cette petite réunion avec les acteurs de la lutte. Alors sur les licences des, lutteurs, vous avez euh, Pour les licences, je suis très content parce que la première chose que j'ai demandé à mon président Bira, il a accepté. en lutteur donner une participation de 1000 francs. Et c'est ça, moi, Mangado, étant ancien lutteur, que je ne pouvais pas supporter. Même j'ai organisé des galas de lutte ici, et je n'ai pas demandé de participation aux lutteurs. Donc aujourd'hui, nommé par le ministre des Sports, à qui je remercie, parmi les 16 millions d'habitants, à confiance de Mangado pour renouveler la lutte traditionnelle, pour développer la lutte traditionnelle dans tout le territoire du Sénégal. Et aujourd'hui, lorsque je demandais que ces 1000 francs-là, on les enlève, mon président était d'accord avec moi, on l'a fait. Suite à cela aussi, j'ai donné encore d'autres doléances pour les licences des jeunes lutteurs qui n'ont pas, enfin, qui ont des problèmes pour acheter quelque chose le, le soir, ou bien même à midi pour venir dans la lutte. Le président l'a accepté. Le promoteur, je ne peux pas passer sans parler au promoteur, tout a été fait. Donc je rends grâce à Dieu. Je n'ai pas encore démarré, démarré mais j'ai anticipé là-dessus et tout a été accordé. Non, ce n'est pas à cause de la pandémie. La, pandémie, on tient compte de là-dessus aussi, pour ces démissions-là. Mais ça sera quelque chose qui va continuer. Ce n'est pas qu'on marche trois mois, quatre mois. Tant qu'on est là, je pense que c'est ça qui va continuer. Nous ma les journalistes qui sont présents qui ne sont pas présents ndax grâce à Yen, je suis feuille de route je commence koy ci Adrien Senghor Sénat, le président de l'arène ak son équipe ci oh, promoteur de la lutte les associations les promoteurs les amateurs ñom ñëpp la wo tay pour waxtaan ak ñom taalal loxo ku nekk indi xalaatam xalaat bu mu indi luy demale lamb ci kanam Manga de ministre bi dafa am confiance ci mom parmi les 16 millions d'habitants mu Falma. confiance bu mu am ci man mo xam lu am ko ma ñaan confiance bobu yalla bu mu ko donc wax ma ne ak askan bi sa bunte mission la ma sant mission boobu laay def moo tax ma tey tey woo mbokk yi. waaw maa ngi ko ñaan yalla parce que ma ngi bugg dem gisi CRG yi gisi le co comité logo yi liggé ak mom waxtaan ak mom laaj leen seen problème yi laaj leen seen lu ñu jànkontoor parce que am na ay nit yoo xam ne dañu bind si ne seen lamb ay quatre heures lay tas

mang leen di gërëm suma jaam joolaa yi di leen sant bu baax a baax ko fukki loxo ak licence à 75 000 francs te mu nekkoon 100 000 francs je pense que c'est abordable quand même licence lutteur nekkoon 5 000 francs ñu indi ko 3 000 francs Il y a un jéego yoo xam comité bi bu loolu la def. mbër yuy dugg si te kuy dugg si joxe 1000 francs loolu du amati moom laa njëkk a wax moom laa njëkk a ñaan ñu may ma ko benn mbër du dugati di joxe ñaari téeméer. mais est-ce que wàññi bi yëg na ci stade yi. arène nationale promoteur lutte simple dañ fa bëgg di dëkk ay grand événement. su ñu dëkkee foofu ay grand événement foofu cas particulier la yaakaar naa ne frais yu nekk foofu yëpp dañ ko waxtaanee.

mais règlement bi le règlement ci Sénégal. qu'il nga a pas amagul comité local alors que ci biir Sénégal dëkk dëkkaan yi ñu ci bëri lutte simple la ñuy tëgg te amuñu ay comité local. booy def sa tournée boobu ana lan lan nga ciy wax. non am na ay comité foo dem am ay comité locaux déjà le président de FIMLA mu ma woo dafa bëggoon a ñëw fekkee réunion bi waa Mar ñëw nañu les anciens lutteurs de Joal de Joal Fadiouth ñëw C'est le président mu ngi euh, le président des anciens lutteurs, de la lutte traditionnelle, sommes Gisgenko. Donc je pense que tout le monde sont là aujourd'hui pour en discuter beaucoup de problèmes. Je vous remercie. Merci. Hein? Non, lamb kañ lay président de la république Montejon Estadi, stade le ministre des sports Mom Deglou, Deglou ministre des sports déglu le président de la république je vous remercie.